Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'en vais vous la lecture du communiqué numéro 55 de ce samedi 25 avril 2020. Le ministère de la Santé de l'Action sociale a les résultats des examens virologiques ci-dessous. sur 703 tests réalisés, 69 sont revenus positifs. Il s'agit de 63 contacts suivis par nos de la transmission communautaire, dont un à Koloban, un un aux Parcelles à Niaï-Thioker un à Mbaké et un à Nioro. 14 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est à signaler dans nos structures de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 614 cas ont été déclarés positifs dont 276 guéris, 7 décédés, un évacué et donc 330 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. ci wolof ma jàngal leen communiqué ministère de la santé et de l'action sociale tey ci samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril bi ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaja lim ci juróom-ñaari téeméer ak ñetti test yi ñu def juróom benn fukk ak juróom ñeent ñoo ci positif maanaam juróom benn fukk ak ñetti cas contact juróom benn cas yoo xam ne ci transmission communautaire bi la jóge benn ci Colobane benn ci Mbao benn ci parcelle Assainies benn ci Niayes Thioker benn ci Mbacké ak benn ci Nioro ci malaat yi ñu hospitalisé fukk ñeent wër nañu si dinañu génn ci waxtu yi ci kanam ci suñu structure yi nga xam ne foofu la ñuy def malade yi nekk réanimation benn cas grave amul ci structure yooyu yeneen malaat yi nga xam ne ñu ngi leen hospitalisé ñu ngi am tan ci bésu tey dalee bés bu njëkk bi Sénégal amee benn ka wàññi nañu juróom benn téeméer ak fukk ak ñeenti cas ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn wër nañu ci juróom-ñaar ñàkk ci seen bakken kenn ki ñu évacué ko ci dëkkam